am la wax ca Louga. Mhm. waaw lu ci waxoon. immigré ba ca Louga nee na. Hmm. déedéet moom bitim Italie la woowee. waaw waaye apparemment waa. yàgg na ma. Euh, soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ bi maa ngi lay fay. waaw lu ñu ñëwoon tey fii ci euh, biir dëkk bi ci Louga di am reportage bu def ci soxna yi Modou Modou yi mu mel ne yow soxna su Modou Modou nga. waaw sëñ bi soxna su Modou Modou laa. waaw dooñu gis fii ci télévision yeeg rajo yeeg ñu ci bari daal di génn ci di wax ci jabaru Modou Modou yi di ci wax lu baax di ci wax lu safaano euh, te yow fii nga dëkk ci Louga xam nga ni mooy capitalu Modou Modou yi te jabari Modou ndax mën nga noo firndeel li ñuy wax ci baax am na wala ci safaan am na ndax mën ko firndeel. waaw sëñ bi mën naa leen koo firndeel euh, ñi daan baax ñi ngi baax ba léegi man su ma déggee ñu jabaru Modou Modou yi danoo bon man daf may jaaxal man de wax dëgg yàlla. fa ma bawoon fi la may fekkaat am nañu baax nag waaye am nañu bon laay sant yàlla bu baax ndax euh, defal nit ki lépp yàllaa ko mën ñi ngi sant yàlla bu baax sama gorom may na ma jàmm samay peccor ga ñi ngi ci jàmm te wax dëgg yàlla mën naa ni Louga gii ñu nekk daal moodu moodu yëpp ñi ngi ñëw ci jàmm di dellu ci jàmm te ñu ngi ñuy yor ci jàmm ak salaam xiifuñu maruñu raflewuñu wax dëgg yàlla mais boo xoolee moodu moodu yi kër yu rafet yëpp ñooma yu rafet yi ñooma lépp ñooma nañu waxante deug soxor rek fi ne. ki am dana la jox ki amul nga muñol ko waaw ñi ngi yàq nak deru jabaru modu modu yi na jabaru modu modu li jabaru modu modu la man de wax deug yalla jabaru modu modu yi ma xam yeb demuñu dikuñu ñi ngi tok di xaar seen jëkkër waaw. mais modu modu yi amuñu morom nañ leen sante ñaanal leen ñaanal leen xewal waaw jabaru modu modu yaakaar naa warta mëna dem ci télé yeeg rojé yi di deru jëkkëram. te jëkkëram génn daani dooleem ngir wut lum ko suturaale moom njabootam. mais Modou Modou yi amuñu morom nañ leen sant ñaanal leen ñaanal leen xéwal. te yaakaar naa ni loolu du dëgg sax ndax ki ne la toogal ma wuti ñëw teral la yaakaar naa doo dem ci télé yi di yàq deram loolu moom man gawuma ko man. Modou Modou yi looy lay defal seen dëkk man j'ai fait vingt ans presque en Europe mais lu ma am damay yónnee sama jaar damay def dama koy defal li ko war ci dañuy muñ. móor-móor yi li ci war mais surtout Louga région bu mel na Louga amul usine liggéey amu fi y a Louga bu doxee tey móor-móor yi moo tax mu dox nañu waxante dëgg dëkk bu mel na Louga ay Matam yi ay Diourbel dëkk yooyu yëpp móor-móor yi ñoo ko yore te Louga moo ci raw Louga mën naa ne mooy capitale immigré mais boo xoolee moodu moodu yi kër yu rafet yëpp ñooma mbedd yu rafet yi ñoom euh, mbokk yi defe naa ni loolu ñun ñoo ko déggandoo ñoo ko déggandoo ci diwaanu njàmbur gi ñu nekk nga xam ni télé yu bari euh, ci rajo yu bari ñu ci invité ay jigéen ñoo xam ni ndax sax ay jabari moodu moodu lu sëñ bi loolu ñu ngi koy dund fii mu metti ñu torop nag mënuñu ci dara metti nañ ñu torop ndax wax jooju mënoo doon jabari moodu moodu taxaw ci télé wala rajo di ko wax muy safaan goo xam ni da ngay tuumaal sa jëkkër yàq sa deru waa kër loolu wax dëgg li ñu waxante dëgg soxor rek fi nekk